alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alxalqi sayidi almursalin wa ala alihi yi topp suñu jataay yi fu ngeen mën a toll ci seen émission shukran ñu ngi leen nuyu fi ñu leen daan nuyoo rek di ñaan yiwu yàlla wi muy séddale yàlla bu ñu umb euh, tey nag ñu ñëw ak yéen ci seen njob baxtalu jataayu émission shukran jagleel ko nag benn ponk boo xam ne yàlla ñu ko sant ci biir muy sunna soo xam ne lu war la mooy zakaatul fitri azakay weeru koor azakay muurum koor war nag bépp jullit bu góor ak bu jigéen ndax jële nañ ci ibnu umar radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farataal na azaka muurum koor ci weeru koor lu tolloog mudd ca tàndarma ca jamono booba wala ci dugub mbaa ci bele wala ci ceeb bu fekkee réew ma nga nekk ceeb lañuy dunde muy nag lu war loo xam ni ku woor ba korite gi jot war nga koo mën a génne war na gor war jaam ci képp koo xam ne jullit nga di mag di ndaw war na la ba ci xale bi nga xam ne dafa juddu ci guddi gi bat set di weeru koor dañ ko war a génneel muuru koor loolu dafa jar ñu xam ko bu baax parce que suñu toogee ba aima yi dem ca julleekaay ba di leen ko fa wax day fekk mu paase ndax muuru koor liñ ci soxla mooy nit ki génne ko balaa moo dem ci julleekaay ba parce que dañuy wax ni ki ko war a laaj fexeel ba bu mu ko laaj di tànqal nit ñi euh, zakatul fitri nag dañu wax ne dana laabal bakkanu ki woor nu mu koy laabale mooy dañ cee ay mbiram yoo xam ne mooy rëcc rëcc yi mu doon def ci biir weeru koor wi lim ci caaxaan lim ci wax mbóosóor lim ci wax na ko sudul noona zakaatul fitri bi bokk na ci yi nga xam ne day raxas loola parce que azaka raxasa ko tax a jóg beneen bi ci desit mooy azaka ji dana omal ki nga xam ne dafa ñàkkoon ba war a laaji dana oomalit ki nga xam ne dafa ñàkkoon te munta laaji tañ war ko jox azaka ñoom ñépp kenn ku ci nekk da ci gis sa bopp euh, ndax nag bisu julli gi jële nañ ci ibnu abbas radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na asakay muuru koor dana laabal aji woor ji ci caaxaan yu ko rëccoon mu def ko wala wax na ko su dul noona wala rëccale lekk ci biir weeru koor wi mu lexal ci miskin yi loola dana raxas mboosóor yooyu mu defoon ci biir weeru koor wi moo tax yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne agnuhum an suali fi hada al yawm na ngeen leen jox ñu oomal ci bis bi bala ñoo génn di laaji ndax dafa jaaduwul beneen bi ci des mu wax ne yonent bi nee na chahru ramadana mualliqun bayna alsamaai wal ardi laa yarfau illa bi zakati alfitri fa baadiru ila fiali mamuratihi allati awjabaha wa axriju sadaqata alfitri wajtahidu fi ixraajiha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na weeru koor wi nga woor yépp dañ koy dajale trente jours yi wala vingt neuf jours yi aj ko ci asamaanu benneel du ñu ko yéegal mukk li fekk borom génnewul zakaatul fitri moo tax jërul sàggane seetal nga xiif fanweeri fan mar fanweeri fan ñu terale yi la daganoon yëpp ci bëccëgu weeru koor fanweeri fan nga bàyyi ko ñu ne la benn mudd mudd mooy euh, suñ koy wax tey boo ko doon génne ci xaalis da nga naan mille quatre cent francs ñu ne la moo téye sa koor gi ci kaw wax dëgg yàlla jaru ko boo ko doon lebi def ko sax def ko Ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na duñ ko yéegal te génnewoo ko kon nañu gaaw ci jëfi ndigal loolu ñu ñu jëfa li ñu yi santoon te waral ko ci sun kaw te ñu génnee azakay muurum koor te farlu it nag ci génne gi ñu koy génne te mu doon it nag li gën a lew ci sunu alal te gën caa teey ndax nag waxoon nañ ko ci suñu njàngale yi paase ne inna allaha laa yaqbalu illa tayiba yàlla ku laab la du accepté laabul kon li nga koy jox fexeel ba li ci gën a laab na nga ko ko jox moom yàlla sun borom bi subhanahu wa taala euh, beneen bi ci des yàlla nag bim la joxeloo ci sa alal ba noppi sànniloowula ko daf laa wax ni nga koy defee mooy lan yaa ayyuha alladina amanu anfiqu min altayibaati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ardi euh, yàlla def ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen sàkk ci li ngeen am li gën a teey wala li ngeen fàggul seen bopp te mu lew leen ngeen génne ca asaka moo xam li ngeen bay la walla leneen la parce que dañuy seetli na nit ki alal jim liggéey ci ñaxam du bokk ak lim for mbaa lim gañe fenn wala lim nàngam nangam duñ bokk ni mu koy jëfandikoo léegoo léeg ñaare koo fekk mu yàq xaalis rek sonn ca pour am ga waaye ki nga fekk mu téye lim am dëgg xam ni mu koy conserver kooko am na lum daj ca lam am moo tax yàlla euh, bi mu ñuy génne loo azaka daf ne nañ génne ci liñ am liñ ci fàggu la ca lew wala la ca teey nañ ko génne wa yuqimuuna salaata ñiy génne loolu mooy ñiy taxawal julli wa yutuuna zakata mooy ñi nga xam ne buñ jullee ba noppi lañu am te denc ko ren ba déwoon mu mat azaka daañ ca coppati génne azaka kon nag azaka jooju yàlla nga ko waral ci bépp mag lu mag mage mage mage azakaam dafa war a génn lu gone ndaw ndaw ndaw azakaam dafa war a génn borom martabaak borom darajaak ñépp ci bokk yam zakkaat la boo xam ne yàllaa ko farataal wala yonent bee ko farataal ci képp kuy jullit te woor weer wi wala munoo woor weer wi ngir ngànt loo am dañ laa sant na nga génn azaka weeru koor waaw muy ci góor ñi muy ci jigéen ñi ba ci mbindaan mi nga xam ne mi ngi ci kër gi te dundam nga féetewoo ko yaa ko war a génneel azaka booy bi ci kër gi nga féetewoo dundam yaa war a génne azakaam képp koo xam ne mi ngi ci sa kilifteef te yaa koy añal di ko reeral léppam ci sa loxo la nekk kooku su boobaa muuru kooram yow yaa ko war a génnee waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne na ngeen ko génneel seen jaam ñi ci kër gi wala seen jéebéer yi sax na ngeen leen génneel zakatul fitri yàlla wax nag ne bi ngeen génnee yi muuru koor ba noppi du ku leen neex ngeen jox ko ko yàlla dafa limoon ñi nga xam ne ñoom la jox azaka moo tax yàlla wax ne innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masakini wal aamilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqaabi wal gaarimina wa fi sabilillahi wabni sabili faridatan min allahi wallahu alimun hakim yàlla nee na sarax bi ngeen di génne ah, man yàlla maa ngi farataal ci yéen ne na ngeen ko génne jox ko faqiir faqiir nag suñ ko waxee mooy ki sol mbub mu set wecc sol dàll yi set wecc te wóor na wóor yàlla sax de boo demee ndékkiwul mbaa amul sax lu mu añee waaye rus na koo laaj suñuy joxee nan njëkk a jox kooka parce que jomlu naa génn di laaj bugg ta tàllal loxo suñuy dimbale nañ dimbale kooka ba noppi yàlla ne nañ ca teg ki nga xam ne teg naa ko ak ñàkk te mënta muñ ñàkk gi ba génn di laaj kooka nañ ko jox ak kan kiy liggéey ci azaka ji nga xam ne moom fa mu toog mooy fa ñuy dajalee azaka ji kooka nañ cay génne di ko ca jox parce que ci lay dundal njabootam ak kan ki nga xam ne dafa tuub dugg ci lislaam nañ yëkkati ci azaka ji di ko jox ndax loolu dana xemmeem loo xol bi lislaam mu xam ne lislaam bii ñu nekk que diine partagé la ak kan ki nga xam ne dafa nekk ci buumu njaam jaam nag buñ koy wax ca ba njëkkoon comme na salmaanul farisi defoon di jaayante ba gis yonent bi far ñu jàpp ko jaam ci diggante bi bi mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu laaj sangam ñaata la mën a joxe pour jot boppam sangam am lum ko laaj jullit ñi dajale joxe loola mu am liberté xurriyaam ku nekk ci buumu njaam te war a jot boppam te dib jullit na ko lislaam dimbale ba mu jot boppam wal xaarimiina ak ki nga xam ne euh, dañ ko lebal xaalisu projet tey bi maanaa wala dafa demoon lépp xaalisu jàmbur doon ci liggéey xaalis bi sànku ci loxoom wala boo xaalis bi lam ca doon liggéey du lu naqari yàlla ba xaalis bi seey ci loxoom mu nar ca am difficulté ñu téye ko ci yoon nañ dajale ci alali baytumaal ji wala jullit ñi génne azaka ñu jël azaka jooju jox ko ngir mu am liberté total ñu ne ak kan ak ki nga xam ne day jihaad fi sabilillahi mooy ki yor daara di jàngale alquran wala ki tas diine wala bu lislaam tëggee xare ñu jël ci alal ji financé ko ca wëp ni sabili ak ki nga xam ne étranger la ñëw ci réew mi amul fu mu jëm jafe-jafe am na mu war a dellu dëkkam amul lu mu demee nañ tibb ci alal ji jox ko ca azaka jooja lii nag farata la boo xam ne yàllaa ko farataal ci jaamam ñi te yàlla lum farataal ci jaam ñi def ga moo gën ñàkk gaa def kon mbokk yi azakay muuru koor lu ñuy caaxaane dañ ko war a génn te nañ ko génneel ñépp nag ndax yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko waxoon ne xuz min amwalihim sadaqatun tutahiruhum wa tuzakkihim ah yàlla nag mbokk yi su àddoone nañ génne ci sun alal yi azaka ngir mu laabal liñ dese nañ génne azaka damay wax ne nag azaka moom kenn génneetu ko moo tax yàllaa ngi tibbal boppam te yàlla bu tibbee day ëpp moo tax marché yaa ngi lakk oto yaa ngi daanu bitig yaa ngi takk ñàkk génne azaka képp la nañ coppati ci liñ am jox yàlla balaa tibbal boppam ndax yàlla bu tibbee mu ëpp yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te defal leen ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu